ngir bëgg la nekkoon dëgg mu soppi ko caaxaan mbaa lu doon caaxaan mu soppi ko dëgg waaw loolu mooy ger waaw fekk loo xam du dëgg nga bëgg amoo dëgg wala bëgg ñu jox la dëgg ka am dëgg nga bëgg ñu xañ ko dëgg ga boo jox alal ngir loolu loolu moom ger la waaye nag bu la wóoree yaa nekk ci dëgg te boo joxewul doo am sa dëgg gi waaw yow yaa am dëgg waaye xam nga ne moom bu fekkee neex la ak buur yàqu nañ ba nga xamee ne moom attakat yàqu nañ ba nga xam ne faaw nga joxe asaalal njëkk loraam dëgg ndax xamul yaa nekk ci dëgg kon mu yow yow joxe li nga def dara sikku ci moom ma nga xam ne kay mooy nangu alal jooje ngir fekk lu dul dëgg mu fexe ba muy dëgg maanaam mu àtte ko muy dëgg waaw kay kookee moom moo def lu araam moo tax mu naa la fa jaizun kon day aji dagan la lit daa fi ñeel aji jinja maanaam kiy joxe li muy joxe ngir ñu jox ko dëgg te bu ko joxewut ñu xañ ko dëgg loolu dagan na ci moom dagan na mu joxe ko maanaam haramun aji araam la waaye xalal aaxiri ci aji jàpp ja xalal qadaa'i ci boo toppee attek ab attekat wal futiya ak boo toppee ubbeek aji ubbee min ahadil xasmayni bàyyi ko ci kenn ci ñaari way xoloo ya, aw min huma wala tukkee ci ñoom ñaar ñëpp moom daal nee na moom mi nangu alal ju aram ji ngir atte lu bokk te dëgg daal anam goo ko di seet rek alal ju araam lay jël boko sété ci atep atikat wala ci sëriñ buñu laaj rek mu wax la mu xam ñoo ci yamo ko ci man top rek lam lay wax mom moy ki nangu alal joju mom alal ju lay nangu mo xam ñaar ñepp koy neexal mo xam kenn koy neexal waye mom dal duñ ko neexal ngir mu atti lu bokku te deug rek waaw lool mom ma ngay def lu araam ndaxam sax bu fekke dañ ko samp muy atté kenn waru ko neexal sax donte buñ ko neexalee dëgg lay àttey du sañ a nangu am neexal ndax la ko baytimaal di fay rek doy na sëkk mënta ñàkk fay bu baytimaal moo koy fay daañu leeral ci kanam nag bu fekkee ne léegi baytimaal du ko fay ba ñoom ñi nga xam ne ñoom lay àtte ñoo wëlbati ko boole neexal ko maanaam fay ko ngir mu àtte leen daañu ko leeral léegi وقال ابن الحربي وقال وخنا ابن الحربي إن كانت دم نكنا الرشوة جرجة faman di ak njëkk lil hukmi ñal arté ba fa hiya kon mom suhtun gerala wa in kana dem nek na samanan di ak njëkk lil jahi ñal daraja fa hiya kon mom makruhat lu ñu sibla neena sa yu fekke ala jañ ko jox bëgg mu arté lu amu tax ngir ko koku lu dul deug motax ñu nang ñu jox ko alal ji kon loolu ala ju aram la ah su fekke dañ ko jox ngir daraja kon loolu ñu sibla dañoo bëggoon bu fekkee am nga daraja nga xam mën ngaa tilu kenn itam ñu bañ la caa jox dara am na sax ñu koy araamal wal aklu bi diini wa bi am na ñuy wax naa boo amee daraja itam doo sañ a tilu ñu la cay jox alal nga xam ne ndax daraja ji liggéeyoo ko li yàlla defal rek da nga caa war a tiloo ngir yàlla waaye wari sula caa jox alal am na ñoo xam ne dañuy boole ci loolu araam sax anaam sa daraja nga ci lu jëntil kenn mbaa nga cay toppatoo kenn ci kanam àttekat ba ñu la cay jox dara nga di ko nangu suma xaal topp mu ne maa loo xam ne kaana nekk na min faroodil kifaaya di bokk ci fardu kifaaya yi fal qaayum aji taxaw ja bii ci moom yajuus dana dagan la xooñal ko axdul ujrati jàpp ak pay xaleha ca moom te wa min taalika bokk na ci loole al imaamatu jiite wal muslim ak aji defare bay na naas diggante nit ñi nee lépp loo xam daa bokk ci far du kifaaya yi nga def ko ñu fay la ci ayut bu fekkee baytimaal moo lay fay ayut mel ne jiite wala noddu wala atte nit ñi loolu yëpp ay fardu kifaaya lañ loo ci xam ne nag fardu kifaaya lañ nga def ko ñu fay la ci baytimaal moom dara dara nekku ca sañas na ko waxanil ustaas yi jële nañ ci ustaas ba abi bakarin mu ne maxalul xilaaf yi béréb bu wuute ga fii maa nekk na ci li nga xam ne yuuxasu def na ko jàppe min xëyri baytimaali ci lu ñu baytimaal wa amma minhu daal dukkee ci baytimaal falaa xilaafa déet wuute fii jawaas yi ci daganam lil xani yi ñal aji woomal wal faqiri ak aji ñàkk nee na li ñu wute kay mooy bu fekkee lañ lay faye ca loolee ngay def nit ñee koy boole jox la baa ñu ngay àtte ñoo la koy jox waaye bu fekkoon ne bitimaa lañ lay fayee moom ñëpp maas nañ ci ne dagan na mm-hmm. kon daal bu fekkee bitimaa lañ lay fayee moom am ñu wute ci ne dagan na bu fekkee nag ñaar ñu ngay àtte wala ñooy boole si alal jox la nag ngir nga àtte leen nag maanaam mën a ko wax léegi وقال وخنا ابن حجر ابن حجر في شرح البخاري شرح البخاري ne qaala tabariyu ne zahaba dem na al jumhuru mbooloo ma ilaa jawaasi ak dil qaadi jëm ci daganub jàppug aji àtte ji al ujrata pay xalal xukmi ci àtte ba di kaw ni si ngir nekkam yashxaluhoo di ko gàllankoor mën na it yushxiluhoo al xukmu àtte ba anil xiyaam walis taxaw bi maslahatihi ci maslaam waaw nee na Atabari nee na mbooloo mépp maas nañ ci ne yow mi àtte mën ngaa jël pay ci àtte gi ngay àtte ndax boo xasee bu féetewoo àtte bi doo mën a taxaw sa mbiri bopp maa ndegam moom àtte bi da nga koo féetewoo te yaa ngi koy teg awal awal ci yoon rek fay dañ lay fay dara nekku ca ndax doo ko mën a booleeg taxawu sa mbiri bopp maanaam wutal sa bopp ak dund moo tax na xayra ànd na taifatan ndare nag ab kuréel mina salafi ci dawal ba karihatu sib na ko wala mu xarrimuhu te aramaluñ ko maxa zalik ànd ak loole mu ne waaye ñooñu dañuy wax ne bu ñu sañoon booy àtte itam da ngay def ngir yàlla rek te bañ laa jox dara waaw ni yonante bi daan jottalee yonante yi yónni gi ko yàlla yónni te du ci laaj genn pay dañoo bëggoon ki nga xam ne mooy jàngale mbaa mooy àtte itam mu def ngir yàlla ngir noonu rek waaye nag sib rek la ci ñoom ñu ko wax itam sib dong la sibuk sibuk def bañ def la gën rek sibuk bëggoon nga def la gën rek wa wax na abu bakarin alkurasiyu ne yajuusu na dagan lil qaadi ñal aji àtte ji ak du risqi jàpp ak pay mooy jàpp wërsëg alal qadaa yi ci àtte ba xind ahli xilmi fa ñooñ xam-xam xaatibatan boole seen mina saxaabati ci saxaaba ya wa man ak nga xam ne baxadahum nekk na seen gannaaw waxoote moom loolu xawlu fuqahaayil amsaar yi mooy wax yi mooy dégg fiq yi dëkk yu mag yi wala axlamu duma xam baynahum seen diggante xilaafan genn wuute Abu Bakar moomu nee na daanaka daal boroom xam-xam yëpp da taali saxaaba yi ba ñu topp seen gannaaw marché nañ ci ne ki àtte mën nay fayu mën nay laaj ak pay ci àtte bi ndax du ko mën na booleeg soxlay boppam mu ne na xawma kenn ku wóotee ci loolu ñëpp ci marché waxat dakara tudd na daalika loolee xawmun aw nit minhum bokk na ci ñoom masruqun masruq wala axlamu duma xam ahadan kenn minhum ci ñoom xaramahu ara mu koy araamal ñi ma xam ñëpp daal dañ ko benn ñu ne sib daal lañ ciy wax léeg te sibuk seexlu rek la maanaam sibuk bañ a def sibuk bëggoon nga def la gën rek ni yonante bi alayhi salaam rek waaye ñëpp ba maasa nañ ci dagan na moom fayu ci boo féeti woo àtte ñu lay fay waxaale wax na alxalabu ne wajhul karaahati anamuk sib ga mooy ànd hoo naka moom fil asli ci cosaan maxamoon luñ yan la xalal ihtisaabi ci sàkku tuyaaba li xawli yi ngir wax yàlla ji taxalaa kawe na li nabi yi ñeel yonanteem bi sallallahu alayhi wa sallam ko la asalukum la asalukum duma len laaj xalihi ci jot li yonante gi ajiran genn pay fa arado ñu bëggoon nak ay ajuree bu dawee al amru mbiruma fi ci moom al asu ci cosaan la allasi la nga xam ne leral leeral allah yalla di nabi yi nabiihi yonante mba wali wali wali yàlla yadduxu la wali allah yadkhula ak ngir mu dugg fi ci moom man ko xam la yastahiqu du ko yeyoo fayata tamit ala ci alal nit ñi alxabab nee na loolu daal ak si dong la boo gisee ñu sib ngay àtte ñu lay fay mooy dañoo bëggoon rek nga roy ci yonante boo ko yàlla ne xul laa asalukum aj ajran ne leen jot li gi may jot li yonante bi yàlla bi du leen di laaj genn bay ñu bëggoon yow itam boo dee àtte nga mel ne ku ko wóotu nga bañ a laaj dara ci bay ndax bëgg rek mbir yi aw ci cosaan mooy roy ci yonante ba ak itam ku ci koo xam ne yëlluwu ko bañ cee dugg loolu rek lañ ci jubluwoon ila an qaala jëm ci ba mu wax ne wa fii jawaasi wa fii jawaasil axfi nekk na ci daganuk jàpp minal mutaxaakimayni ci ñaari way atte lu ña wala minal mutaxaakimiina ci way atte woon te ña nekk na ci xilaafun ab ndax daa topp loolu ba yàgg mu ne nag wuute nañ ci ndax nan ngay atte te gaa yi gaa yi ngay atte ñoo lay fay fay ñu la ci baytimaal waaye ñaar ñi ngay atte wala mbooloo mu ngay atte kenn ku nekk day génne joxe ni boole ko muy sa pay ndax loolu dagan wala daganut wa wax waxna al yadali yadaali yu ne xultu wax ne wa hadha li kulluhu léppam inma huwa naka fi akhsi al ajri nek na ci jàpp pay ga xalal xadaa yi ci àtte ba bil haqq ci deug rek ni wa amma akhsi al ajri na jàpp pay ga min ahadil xasmay ni bàyyigoo ci kenn ci ñaar way xuloo yi xala annahu ci kaw ne naka moom yàq di àtte xalaa qasmihi ci kaw aji xuloon tem ja wa yuqallibuhu tem ko notalal lahoo ñeel ko bi xayril xaq ci lu dul dëgg fala qaa'ila amul jenn aji wax bi jawaas yi ci daganam kama yafxaluhu ni ki mu koy defee baxdu xukkaam yi bala dinaa lenn ci àttekat ci sunu dëkk bi le wal xiyaasu muslu ba billaahi nekk na ci yàlla ah nee na buñ dee wax lii naa wute nañ ci ndax gaa yi ngay àtte kenn ku nekk génne ci poosam ñu boole ko muy sa pay dagan wala daganut bañ ko wax itam nee na mooy nga àtte leen ci dëgg nga xam loolu dee nga àtte leen ci dëgg waaye nga jox kenn ka dëgg xañ ko moroom ma hmm? ba noppi ñu da ci fay nee na loolu amul kenn ku wax naa dawan na ñëpp maasa ci ne moom sañatu ko li ñu wax kay mooy yow dëgg rek ngay àtte baytimaal buy fay nekk fi ñoom ñi ngay àtte nag kenn ku ne génn ci poosam ñu boole ko muy sa pay loolu ci la ñu wéte woon ndax sañas na ko wala déet kama qaala ni ki waxe woon sayidi sama sang xomarul xaraaq xomar alxaraaq asharifu mi sëtu yonante alxasani yi mi ko jóg xasan murshidan dan muy aji sodd wa qadir tasama ta fek na mu war lu maa loo xamne la laa samu du war minul wafir ci bahrul wafir am kenn fay la ndax nga jox ko deug xagn ko ci dess da waxon ñëpp ma na ci ne loolu aay na mu ne woon ko suñu àttekati jamono ji defé mu ne loolu mi ngi lolu nak la misali wax yi sang bi sang bi dafa waye ci ta ta def li wax yalsam manam xam nga fa ngay way mom bokk ay daaneel mënta ñàkk waaye la jiitu daaneel ba tam bokk nag loolu da ko war lu waaye warut da nga ko gis léegi ci moom li wax raw mooy la ngay fa ngay daaneele daa war a yem moom way yëpp ko waaye la jiitu loolu itam bokk nag <laughs> loolu moom boo ko defee iltisaabu ma laa yalzam la warlu lu warul la ko gis léegi nag kooku dane woon xudaatu àttekat yi sunu jamono ji am saw mujj nañu luusoo san di kem ay sàcc xamoo man ci matale fil xaqiqati ci dëgg-dëgg laa xusoo san du ak jagoo nee na mën nga ne mboolem àttekat yi sunu jamono ji ñëpp ay sàcc dong lañu jëlu sax ngay teqale naa kenn kenn say boo maas na ñëpp ñëpp lim ne lim ne nag waxaadil ci sama maa sam gis nga dane xam nga xusoo saa saa la daaneele booy ci topp luusoo saa saa la daaneele ba ca mujj fësoo saa saa waaye xam nga boo seetloo lu jiitu saa yëpp soo la xusoo nusoo fusoo waaw loolu nga xam ne moo jiitu fi nga daanele ba noppi yëpp yemle ko nga war lu yemale ko yépp bokkale ko waaw loolu la wax ne mooy iltisaamu maa laa yel sax hmm. yaraw na danañu gis bi ak li am waa liyataama ci lek alali jirim yi ka dalu ko ñom yaram danañu gis bi ci mom nu soofan ay yah ma dañu japp ne ñom dagan na lek alali jirim lolu bëgg wax yaraw na gis jim gis moy gis ak daganuk lek alali jirim xam nga lolu mom ñepp ma na ci ne mom alxuraan ko dudd sax mu nak mom bo gisee ñi koy defé da melni sax dañ ca gis yah bu koy daganal hmm, ka annahu mo bi bihi nususa dañ koy daganal ba dañ koy jëf bu mel dañ ca gis yah bu koy daganal waxas bu ko te doy na la ne annahum naka ñoom law saafa xawanaa doonte saafu xante nañu nun saafu xante nañu nun la sàlloo kon ñu bëgg a rocci fusoo san ay njong ay copp-copp min xawaati mi naa ci sunuy jaaro ah nee na buñ dee saafawante yow di joxante loo sax copp-copp yi nekk ci ab jaaro mel ne jaaro xaqiiqa lay def ci kaw mel ne wurus ba xaalis sax buñ ko mënoon rocc rocc ko maanaam ñu dara daal ci <laughs> xeebuñu dara ci alal yi jaamur yi luñ ci mën a nangu rek nangu ko waxaale wax na xayruhu ku dul moom ne raay naa gis nanu waxadd ab daa tamit moom feeñal na azamaanu jamono ji xajaa iban ay kiimtaan gis nanu xobaatan way àtte tax ku mu ñu gën ñu àtte bil jaxali ci réer bi xëy xaq ci lu dul dëgg xudaatun ay àttekat lañu tuxaatun ñu di way bew ba li fi nekk buxaatun ñu di way bew ba tey fa da abuhum sen ada tahaqqub ahkam al qudati moy di nga atay way atenya dawil adli nya di woro bok mandu da na man dal gis na ci e atta kat yo xamne xam ñu dara di ñatt ba lu ci deug daw lol te bo ngi gisee ñu jema di nga atta kat ga ya dañu jema di nga ak gestu ñu bëgg a yu baax ya wa fil irsaad nekk na ci irsaad mu ne waa alam xamal ne anna xobba dunya naka sopp àdduna miftaaxu kulli sharrin mooy caabi yépp ay kama xaala ni ko waxee woon al fudaylu fudaylu ibnu hiyaaba xaddasa yàlla na sellal allahu yàlla ruuxahu ruuxam nga mu ne woon juxi la defeef na asharu ay kulluhoo léppam fii baytin cib nekk waaxi bu di benn wa juxi la te defees miftaaxu caabeem xobba dunya muy sopp àdduna wa juxila defeef alxayru yiw kulluhu léppam fii baytin ci ab néeg waahid bu di benn wa juxila te defeef miftaahu caabeem ak zuhda muy dëddu fi duniyaa ci àdduna intaha lu wax na ci irsaat ne na nga yëg ne bëgg àdduna moom ay wu ne ci lay sababoo maanaam bëgg àdduna mooy caabi ji ubbi wépp ay kilifa gu baax bu ñëw alfut bay lu nee na woon dafa mel ne dañoo jël lépp lu bon teg ko ci benn néeg def bi jëm muy bëgg wa qaala wax wahbubnu munabbihin wahbubnu munabbih bi waaju baax ju siiw radiyallahu anhu ne sahiba àndante woon naag rajul way bax da ruhbaani len ci labbi sabahat ayyam jurum fan li yastafida ngir mu ñu ci mom shay am dara fa wajadahu mu fekk ko mashkhulu mi ko ñu galankor di jikir la ci tuddu yalla wal fikri ak xalaat la yafturu tu dal mu tu ye xam lu ben yoon so ma tafar top mu gesu fi rew mi ci bisba fa xaala mu ne ko yaa haza yow ki qad halimtu xam ma turidu li nga bëgg waye ma la xubbu dunya sopp àdduna su kulli moy mooy ben wepp ñawteef wa suhudu dëddu fi dunya ci aduna ra su kulli moy mooy ben wepp yu wa tawfiixu dëppaleeg yàlla najaaxu kulli birrin mooy cottiteg gépp mbaax man na it najaaxu kulli barin mooy pajug aajug jépp aju baax intaha wax bu dafa nett li ne am na benn waay bu fekkan ab jaamukatub yàlla làbbe yu daan saxoo jaamu yàlla am na benn waay bu fekkan benn làbbe ci ñoom mu topp ko juróom-ñaari fan ndax bëgg rek mu wax ko benn baat bu ko amal njëriñ waaye fekk na jaamukat boobu itam li nekk ci tudd yàlla ak xalaat doy na ko sëkk sëkk ba tëll sa wax ko benn baat boobu ba mu ko toppee ba am juróom-ñaari fan nag mool ba def gees ko ne ko xam naa li tax boobu tey nga topp ma dangaa bëgg benn baat boo fore ci man waaye moo wax la baat bu am njëriñ mooy xamal ne bëgg àdduna mooy njal benn bépp ñaawteef maanaam bëgg àdduna moo jur lépp lu ñaawteef waaye dëddu àdduna ngir yàlla itam ci lañuy ñu yépp wépp ku yàlla defal tawfiix itam sa وفي الحديث نقل حديث من أصبح كخي والدنيا تأدنا أكبر همه ونيقن جاري يتم يلسي مدنة قلل الله يالا قلبه وقلم ثلاث قسال يتجيكو مو يتمر حم يقري لا ينقطه لول دوك أنه يوليسكو أبدا مكو وشهر أكسخلا لا يتفرق خصوص بفيخ منه كمم أبدا مكو وفقر أن يقوى لا يبلغ دوجات منتهاه يمكا يمبا أبدا مكو mu ne addis ba nee na ku xëyta sa yitte jëpp daanaka àdduna dong la yàlla boo laag yett yoo xam ne du ngeen tàggoo dana defal ñegg-ñeggi xol maanaam njàqare ci xol bi loo xam ne yitte joo xam ne du dañ mukk def la nga gàllankooru maanaam nga am soxla soo xam ne doo ci noppi mukk ba noppi nag nga ñàkk-ñàkk goo xam ne doo am mukk nee yett yooyu xadis ba waxal na ko waru ye net na ne man ushriba ku jaxaseef ak xalbuhu xolam xubba dunya sopp àdduna il taata kon taqaloo xalbuhu xolam min xaa ci àdduna bi salaasin ci yet suxlin mooy soxla laayen fekk sos du deñ xanaa uhoo coonaam ba wa amalin ak mébét moo xam ne laa yabluxu du jot mun taxaaxu yemukaayam waxir sin ak xir goo xam ne laa yudraku defu jot xinaahu am koomam mu ne wax na ne koo xam ne dafa bëgg àdduna ba mu ëpp faaw yett yi du tàggook moom soxla soo xam ne da ciy son te du fal te soxla soo xam ne da ciy sax saa yu nekk te du fayu di ci sonn rek ak mébét moo xam ne du jeex mukk ak xiir goo xam du ne mukk ba doyal wa duniyaati àdduna taalibatun aji sàkku la wa mataloobatun te ko ñu sàkku la àdduna day wute ñu koy wut moom itam ci loolu mooy fa man talaba ko sàkku alaaxirata alaaxira talabatu kon sàkku ko moom it adduniyaa adduna xataa yastaw fii ba mu matale min xaa ci moom risqahu wërsëgam wa man talaba ko sàkku adduniyaa adduna talabatu sàkku ko alaaxiratu alaaxira xataa yaatiyahu ba dikkal ko almawtu dee ba yaaxuda te muy jàpp bi xunuq yi ci doxam waaw nee na koo xam ne dangay wut alaaxira adna mu adna lay wutal bop day man adna mom lay wëlbeuti top la manam ko ku won ku aduna deg mul alakhirah adna mom day wëlbeuti ku top la dila wut di sa banex ba nga jott sa wërsak ndax sa wërsak mom faaw nga jott ko wan nga won gannaaw aduna deg mul alakhirah du te nga am sa walu ci aduna waye nonu ku wut aduna fatte alakhirah itam alakhirah mom ngi koy top rek di ñak bis mu japp ko te loolu mooy dee faawu dee dikk rek mu wuj àlaxira waaye daw ko du ko taxaraw waxaw loo waxam ja nag fil xadis ci addis ba ne man usriba ku jaxasee fakk ay li mu ci nam xaalata jaxasonte na waxala ba te mu not waxaw waxam ba iltaata mu taqaloo mooy ilta sama kon mu taqoo waxi la waxees naa ne ittasala mooy maanaam ittasala mu jokk washtadda te mu tar xam nga nett li boobu dafa am ñaari baat yu xaw a jafe wa maanaam pirim mooy ay xaalata jaxasoonte na waxala ba te munut dañ koy firee jaxasee fakk iltaaba itam mooy iltasama moo tax ñu firee ko taqoo foofu am ñu dem maanaam iltaata mooy ittasala ak istadda waaye maanaam moom du ko tax a soree waxan yaxya ibni mahadin jële nañ ci yaxya ibni mahad arrasi rahimahu yalla ko dolli yam allahu yalla ni annahu nak mom qala waxon na ne al hikmatu hikam tahwi dana rot way dana wacc min samay bayiko ci asaman ila al qulub jëm ci xol yi fala taskunu te du dal wala du dekk fi qalbin ci ab xol fi bob nek na ci mom arbahu qisalin ñent jikko wala ñent mbir yahya ibn mahaz neena xam-xam bu am jëriñ day ko ci asamaan jëm si ci xol yi waaye xol boo xam ne yent yi nga ca du ca nangoo dal moom xikam moom xam-xam bu am jëriñ du ca nangoo dal arrukoonu mooy jeng ila duniyaa jëm àdduna waxamu xadin ak yitte ëllëg waxasadu axin ak añaane kenn ci ay mbokkam waxu bu sharafin ak sopp tedd nga yent yi xol bu nekk wala kenn ci yent yi nekk ca bu yàlla wàcc xikmatu xam-xam bu am njariñ du nangoo dal ci xol bu mel noonu mooy xol bu ñu fekk mu jàng jëm ci àdduna maanaam bëgg àdduna wala ay yittee mu weesale ko tey nga xam ëllëg sax day yittewoo ëllëg luy ay yittewu ak gannaaw ëllëg daa war daa a woyofal àdduna ba yittee teyam rek doy waaye ëllëg moom mu bàyyi ko yàlla wala mu añaane menn mbokk la ko yàlla xéwale wala mu bëgg daraja yent yooyu lay wax waxad kaana nekkoon na maalikum nu diinaarin maalikum nu diinaar wa xayruhu ak kudul moom yajlisuuna di toog wa yaquluun te ñu wax li asxaabihim ñel seeni àndal ñel seeni àndaale ne leen taxaalaw kaay leen binaa ak nun na tuubu nu tuub mina zambi ca bakkaar ba ëllësi ba nga xam ne laa yaxudduhoo du ko wàññiwaale ak sarun naasi ci nit ñi zamban muy bakkaar waxu te mom mahabbatuna moy sunu sopp waxu te mom mahabbatuna moy sunu sopp li dunya ñal aduna ji ina malikum mu dinar ak ñu melne mom dañ daan wax seeni seeni seeni gaay daan wax seeni andale na leen kay leen tok fi jéggalu bakkar bi nga xamne ñu bari jappé wuñ ko bakkar te bakkar bu reuy te mom moy bëgg aduna bëgg aduna lay wax ne bakkar bu reuy bare ndax day jur rek yu bari bari ci bakkar yi wa kaana nekkoon a cheikhu sëriñ ba afdalu diini rahimahullahu yaqul di wax ne ida kaana ndem nekk na asihru njabar innama xorrima nag araamaleef na ko li kaw nii ngir nekkam yu farriqu di teqale baynal mar i diggante as cam wa saw ji akum akub dencanteem ni ki soxnaam fa kay fa bid duniyaa kon naka la ci àdduna allati bi nga xam ne tasxaru dana njabar alquluba xol ya wa tufarriqu te muy teqale baynaha seen diggante wa bayna xadrati rabbiha ak diggante péyub seen boroom nee na sëñ bi wax Abdul Diin daa wax naa bu fekkee ne njabar dañ ko araamal ndax jiye yi muy def maanaam gaaf yi muy def niki njabar dana tax nit ak muy seen ñu tàqali ko ne bu fekkee dañu araamal njabar ngir loolu kon de àdduna moom warees na ko araamal ndax moom day njabar xol yi ba teqale leen ak seen boroom àdduna day dox diggante xol yi ak péyub seen boroom ba kon ndegam moom day teqale diggante xol yi ak péyub seen boroom te njabar ñu araamal ko ngir rek teqale nit ak moroom mu doomu ci àdduna kon nee lii mu war a gën a araam kon waalam xamal ne am na arkaana mahabbati dunya naka ponki sop aduna arbaxatu ñeent la malu moy alal wa taham ak ñam wal kalam ak wax wal manam ak nelaw fa man ahabba ko sop wahidan ben min ha ci yent yu bi ghairi gharadin ci lu dul xemmemteef maanaam ci ak jublu ci ak jublu sahihin bi ajwir faqad ahabba kon sopp mu ne xamal ne bëgg aduna ci yent yi la nekk alal ak ñam ak wax ak nelaw xëy na yent yi dara mënu cee ñàkk waaye ko ci xam ne fees weesu nga rek la ca topp ak bëgg aduna la ndax alal yuttux yi day bewloo alal baax na ndax des na ci mën a sàkku ngërëm waaye ñu bare bari buñ ko amee mu bewloo leen wattaxaamu ñam yu day wowal xol manam lek mënta ñak ndax mënta ñak ci nit waye su lekke dafa saxo reg sa yu nek lol day wol xolam wal kalam wax yul ci day soxlaali wal istudi yalla lu andi tuyaba ana wax jawmu njariñ day dox sa digënté tuddi yalla ak lay maye tuyaba wal manamu nelaw itam yul ci day fatelo nelaw momit faccelo rek doyna way lu wess lolu dir nelaw mom tanewul kenn ku may kay fo ak a mooy rek maanaam kii nelaw daal kam tane mooy ki nga xam ne nelawul waaye day fo rek mbaa muy mooy kooku moom nelaw ko tane waaye lu loolu rek nelaw yi moom da koy fàttaloo njëriñam fàttaloo ko yàlla fàttaloo ko lépp luy njëriñam walam tasal dañu toon adduna adduna mad mu matan di lu ñu ŋàññi fil umami ci xeet ya as saalifati di way jiitu indil xurqalaay fa way xellu ya nga xam ne wa maa qaama mësta jub mësta taxaw daaxin jenn aji woote fil ummati ci biir xeet wi illaa waxad xat dara ndare mu wattandiku loo nit ñi mu taabaxata topp àdduna wa jamha akuk dajale wal xubba akuk sopp la xaañal ko nee na nit ñu baax ñi naka jëkk jële jiitoon ba léegi dañ daan wax àdduna nuñ ko war a moytoo ku ma saa taxaw ci biir xeet wi rek da nga wax nit ñi nuñ war a moytoo àdduna banyak banyak bay di kota jalan ko lalu loolu ku ma saa taxaw daan ko tandikul nit wal xikaayaatu nett li wal asar ak jeexit fi dunia ci aduna àdduna wa aku aku kuaram aku kuaram om aduna, àdduna wa ak ay ayam ak saru ñoo bari min antu saa ci bu dee bu leen aw nee na am na nett yu bare bari yoo xam ne daa aju ci mbiri àdduna ak nu mën a ware ak nu mu bare ay ay nett yooyu nag bari na bari koo xam ne yëpp sax mënees koo jeexal wala che di dara ab yoonu di gën a bir fii daalika ci loolee min xawli yi ci wax yàlla ji taxalaa kawe na fii sifati haa ci aw meloom ne ne innamal xayaatu dunia naka dunduk àdduna gi laayibun paxum gone la wala xawun ab paxum mag ilaa xawli yi ba ci waxam ñëw ne wa fil axirati nekk na ci alaxira xadaabun mbugal shadidun gu aji tar waaw nee na ni ko suñ borom waxee ci suratul xadiidi na melal àdduna foofa nee na melal woo xam ne daanaka wenn mënu koo gën a jot am ne innamal xayaatu dunia laxibun wa lahwun wa zinatun wa tafaaxurun baynakum wa takaazurun fil amwaali wal awlaadi kamasali xayisin ajabal kuffaara nabaatu suma yahiiju fataraahu musfarran ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور بل وولي وخنا نيكو سن بروم وخي فوفو دال موم نينا ادني لب توم كاسي بودون لا لو جيتو تيمل تي يالا ريك بولا تي نينا لي غاو جيخ لول ميغي ملني بو تاو جي واتي توفي نات رافيت لول بلا غرينغ غيس لب او كون def ab boob wuuteeg na meloon lool waaw mu ne àdduna noonu rek la mel waaw ne nag alaaxira nag yàlla boole na fa yaar am na fa njëgal am na fa mbugal ko tar njëgal ka yërmaan dana ko jagleel ñu gëmoon tey rafetal mettiir ba nag dana ko féetale ñi nga xam ne ñoo doon mooy ولله تي يالا ولا ولله كوتيف يالا دار الخائل جوخ اج من بحر الصريح تي بحر الصريح دار جوخ سول في رواي بودي لله دار نانغام رك ييم رك لن جوبلو انا ييماتنا يالا تي واخ كات بي دا لي واخ تا داجاكو تي بحر الصريح وي دا اي داج الصريح نك داج لا تي داج يوي كو داني صرف نغا جيخال بقايا الحمر دسيتي دولوغا في تاهاتين تيك توب wala yaxurrannaka te bu mu la war kaydul xaruuri pexem waraakon bi sa dund na nga ko jéem a jeexal ci topp yàlla te warkat bi muy àdduna mbaa seytaane bu la ci kenn war war xal na nga la xas ilal uxraa ci alaxira bi zaadi tuqaa ànd yóbbalub ragal yàlla fa inna mat duniyaa nag àdduna fa inna mat duniyaa nag àdduna mataaxul xuróor yi lu gaaw a dañ luy war a rek la wala mataaxul xururi bagaasub waru rek la ena na nga dëgmal alaxira te ànd yóbbalub ragal yàlla ndax ragal yàlla mooy yóbbalub alaxira adduna moom leen li fi nekk lépp luy gaaw dañ lay doon te boo yeexee mu war la